waaye nag euh, dañoo ne ci dëkk boo xamee nii damay faral di dégg ñu naan dee mooy dëgg. Mm-hmm. dee mooy dëgg laa bëgg komp comp lan moo ko waral. jërëjëf El Hadj ñu ngi. Mm-hmm. jaale bu baax. Mm-hmm. suñu yaay ju tedd jooju di soxna jaaga di ko ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge allahumma amin yaa oustaz di ko jaale njabootam gépp waaye di ko jaale ki nu gën a jaxasool ci njabootam muy Waly sekk wallaay. di ñaan yàlla yal ko yàlla may xolu muñ. allahumma amin. di ñaanal way juróom wa jiitu. Mm. yal na ko yàlla teeroo yërmande. lu metti ñaanal magam ji fi jóge bu yàggul. Mm. yal yàlla teeroo yërmande ñoom ñëpp. allahumma amin allahumma amin ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. jaaga nag pap am na témoignage yu rafet yuñ ko defal. Mm-hmm. bokk na ci seede yi nu ko defal ba ca dàq mm. mooy ku bëggoon yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam te nit loo mën a def ci àddina boo bëggee Seyduna Muhammad am nga mille sens pour am sauvetaasu àddina ak alaaxira mm-hmm. moo tax Pape Anda Mouss <laughs> il est ma gis oustaz Mouhamed mbay bu seen TV bërki démb mm-hmm. génne audio bu muy wax ak jaaga di firndeel nit ñi bëggam yonent bi sallallahu alayhi wa am ay dof yu génn di ko ci critiquer loolu mënul ñàkk am na sax ñu jël vidéo boo xam ni def naa ko six mois ci ginnaaw kole mhm. ko mel ni man Mouhamed mbay laay waxal waa ñoom lu tax ñuy jël yu yàgg di ko contextualiser pour yàq nit la ou maanaam xeeti naafeq yi nekk ci réew mi pap buñ mhm. bëggee ruube lu ne la leen di jaral. am na ab golo bu ma ko defoon ci jamono yi euh, xale catholique bi gaañu woon ndeysaan bëgg ma jaxaseeg àddina te vidéo bu yàggoon la quand même pourquoi ils sont comme ça. xam nga maa ngi la lu xew dañoo dàq wax kenn. mais pap il faut Sénégal nga di leen wan ni ragal newul ci yow. waaye kan moo ragal. réew mi pap ku ragal la ñuy bañ a gis. ragal du def vingt ans de télé <laughs> dégg yëpp ma defoon benn waxtaan di ci wax ni yéen ñi am xarit mu génn àddina audio yi ngeen di génnee ci seen digganteeg moom te fekk nekkul audio bu am njariñ mhm. maanaam ay waxtaan kese kese mhm. mën na ñàkk mhm. mais Mouhamed mbay audio bi mu génnee ci jaaga. da doon jàngale c'est normal talu rafet la parce que day confirmer bëgg yonenteem. c'est sûr c'est sûr c'est normal. c'est sûr c'est parce que tey bu ni woon jaaga waxtaan naa ak moom ci audio. Mm. xam naa ni jaaga bëggee yonent bi. Mm. dana am ku toog këram ne du dëgg. Mm. day wut bës mais xamu ko. waaye gis nga génnee ay waxu jaaga. yu mu ñaanalee jaaga ca madinatul munawwara mm-hmm. jaaga di fedd li bëggam Seyduna Muhammad mm-hmm. alaaji Pape lii ku ko ku ci critiquer Mouhamed Mbaye yow yaa bari problème te mu def dara newu ci. naa xëy na man dama cee d'accord mille pour cent. Mm, et xool a puis xoolal amul ba tey man ñooñu ñoo xam man euh, TikTok am na fu tudd ne pas intéressé am na kanam yu ñaaw yoo xam ne su ma ko séenee rek falaay laay na pas intéressé bu ko defee algorithme bi dootuma proposer seen kanam man ay Viviane lay xool ay Oustaz Modou Fall yéen ñaar képp lay xool ci TikTok bi xooluma keneen mais li ci neex mooy. tey tombé ak Kazu Rajab mhm. euh, euh, euh, Aïssatou Kiné Diouf jaaga dem bu yàggul donc ba tey am na ay similitude moo tax jigéen daal fonkal sa diine fonkal alxuraan waaye fonkal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pap xam nga xam nga xam nga jaaga dafa nekkoon jigéen joo xam ni mhm. boroom këram daf koo gërëm avant muy dem mhm. te yonent bi moo wax ni képp ku gërëm sa soxna isa sallatil mar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha daxalatil janna yonent bi nee jigéen bu dee day julli di woor weeru koor sàmm boppam borom këram gërëm ko nee na bu faatoo bu dekkee dañ ko naan aljanaangoog duggal da wax ne jaaga nag borom këram daf koo gërëm bi muy dund mu door a faatu waaye Pape Sénégal gii ñu nekk nit ñi war na noo defaraat seen toogaay. ki ne mii sama soxna xam na boppam loolu la ko njëkk a wax. mi ngi noonu Pape wallaahi. <laughs> mais Pape senegal fii mu toll. Mm. war na noo defaraat suñu toogaat alaaj Pape. Mm. Pape senegal boo xëyee yi ngay dégg. Mm. da nga naan man réew mii. est-ce que yàlla du fi wàcce balaa. Mm-hmm. yàlla ba muy bind jaaga kenn fekkewu ko. Mm-hmm. bi muy datee dat bi mu war a génn àddina kenn fekkewu ko. Mm-hmm. Pape dafa am loo xam ne yàlla nee na. yii nit mënula am xam-xam ba wuutuma ci mooy rey nit te heure deewam jotul mhm. xam fan ngay faatoo ak ban heure ngay faatu mhm. sunu borom ne ne yii maa ko xam réew mi de bëri na bëri na ay yàlla ndax ñooy tegee daan ñooy jugé waate xam nga lu yàlla wax mhm. wa ma tadri nafsun maada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay addin tamut yàlla nee na amul ku am xam-xam ba xam nit ñi ban jour la ñuy faatu amul ku am xam-xam ba xam ci mbiri dee fan la diw di faatoo ak kañ la diw di faatu sunu borom nee na yii maa ko xam. ku la nit maa ko xam waxul dëgg. lu tax bu nit faatoo ñu ne diw moo ko rey wala diw moo tax mu dee pour pourquoi ñun ñuy wax yooyu. ñeme bangal sa baaraam ñeme yàlla. mun ma koo banque temps yi dama xaw kii daal dama bëri xaalis ni may téye sama billet yi mënuma banque. nii laa def <laughs> waaw bankal ma. ñeme yàlla. Eh, ñeme yàlla kay. bëgg promotion. Ah, bëgg promotion. bëgg relation. bëgg relation. tey su ma bëggee xamanteeg Pape Cheikh Diallo te mënumaa fexe fexe ba xamanteeg moom. Mhm. li may def mooy damay génn def vidéo Pape jàll Diallo yéen ñi ko jege wax leen ko na def tere attention am naa lu ma gis ci moom. Sëriñ ba ko defoon sama yaay daan sama yaay dafa ne dal daanu xëm. booba maa nga Amérique di yaataayu mbe. relation la bëgg. ànd ak sama ñaari xarit di taxawaaloo rek. bu ko defee Pape Cheikh bu nekkul ku dëgër bu liiree vidéo bi wala ñu yónnee ko ko. sëriñ bi naan Pape Cheikh Diallo nee ko na def très attention am naa lu ma gis ci moom wala Pape Cheikh Diallo daa bokk ci ñi war a <laughs> dee waaw amul ku ne woon Eva Tra ki mu toogal si Eva mami lay toogal <laughs> jaxasewul ñaar ñooñu. yaa <laughs> ki muy dendal de du ko liggéey rek ma woo ma mi xam nga damaa bëgg kaa ma ne ko mbaa dégg mu ne ma ah man sama rakk ji man Serigne Touba rek laa gëm waaye yàlla baax na. yaa ngi dégg Pape. Sénégal comme comédie musicale. yow euh, euh. boo ko waxee ku dëgërul. Euh. day def yitte pour jéem dañoo bon nag dañoo bon nag parce mbaal la tudd mbaal. mbaal mooy da ngay mbaal pour jàpp. mais ban plaisir lañ ci am. parce que bëgg ne xaalis ku ko bëgg te nanguwoo koo liggéey doo ko amee ni nga ko bëggee. waaye loolu sunu borom bugg ko nag ko. mais bi ci réew mi Pape ñeme yàlla. nit ku faatu sunu borom rey ko xamoo ban heure la faatu xamoo fu muy faatoo yàlla wax ni. wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut amul ku ma ku ma mën a wuutu ci yii may rey may dekkil yuxrijul xayya min al mayiti wa muxrijul mayita min al xayyi mhm. may fekk jigéen ëmb mhm. ma rey liir bi mhm. dundal ki ëmb wala ma fekk ku ëmb ma rey ko moom mi ëmb dundal liir bi yàlla ni nit ku nekk heure bi nga war a faatu ci sama loxo la nekk te may jox ndigal malakul mawti bu heure ba jotee mu rey nga ni yàlla du rey yor naa liste ren 2024 ñi war a faatu Modou Fall <laughs> safurla ba pare sa maam Maodo nee na araaka araaka nasiital mawt wal mawtu mawridun mhm. fa lil kulli min bahril mamaati nasib loolu lu mu wundu Seydi Hadji Malick dañi gis naa radiyallahu anhu yaa ngi fàtte fàtte lu dee mhm. te xam nga ni sax fàtte woo ko mhm. waaye da ngay fënatal du jaas sax da ngay fënatal mel ni ku fàtte mel ni ku ko fàtte te fàttewoo ko alaaji Malick ni na la leer ne naanu waay la te ku ne yaay demal sa bopp ba ca dex nga tànqal sa bopp naanal sa bopp bopp sa bopp bopp sa bopp carrière solo la ñu demee fa yàlla pap bakkan newul ci loxo nit yàlla mooy rey mooy dekkil moo tax benn mag daan na faral di wax ni ku ñu tëkku nga tiit ak kii waate kenn gëmu ci yàlla. moo tax ma dégg tubaab ni nu sam tous neuf mois de quelqu'un maanaam kenn mënta yàq kenn kenn mënta rey kenn lépp suñu borom la nekk. fa yàlla lay dogalee jaam àggu fa. wallaahi gis nga fii. Mhm. yàgg naa la koo wax. Mhm. gaynde amu fi. déedéet. bukki amu fi. déedéet. segg amu fi nit ñi ñooy gaynde gayndelu mhm. buñ la nee xuux nga daw nag pare nga ci. ci daw ngay dëkk. mais dama laa bëgg xamal ni la nit day wóolu yàlla gëm ko kenn du romb sa bis alaaji Pape. déedéet gis nga boo gëmee ni dee gi benn dee la. Mhm. doo tiit. wallaahi doo ragal. Mhm. ñii di la jël sa fit nangam. Eh, mais Pape yàlla mooy yàlla. Mhm. sunu borom mooy rey. Sénégal ngay gis nit ku am naqar ñu war ñu war a ñaanal ki faatu. ñu dolli la naqar. encouragé ki ki yaayam dem baayam dem magam dem. Mhm. te duñ ko def. moo tax dew ma ci seen dara man <laughs> dew ma ci seen dara man. dégg nga wax Pape. <laughs> baax na rek. Wally Seck mii. wallaay dama ko wax démb ni ko. Hmm. waxuma la li la sa bàyyi liggéeyal. Hmm. mais sa xol bu rafet rek mën na laa walla xol ba rafet. wallaahi. billaahi alladi laa ilaaha illaa hu. borom xol bu rafet bu gisul kenn ci àddina it àddinaam jag. Hmm, ma ni ko gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam kuy réussir mission yonent bi moo la gën a réussir mission. xol baa rafet xol baa laat. te pap yonent bi bi muy réussir mission am nday fekkewul. baay fekkewul maam fekkewul. yàlla yenn saa yi bu la naree dimbali koo nar a wéeru ci moom mu jëlee ko. xam nga man Viviane lay toogal tout le temps. biik rek loolu la may wax mu ne ma man li ma neex ci Wally Seck mooy xol bee rafet maanaam coow lay bëri rek mais day am ndam sur tous les plans. Pape gémmiñu Viviane ak sama nopp. Pape ma ko yaa ñàkk ki ñaan nag. dama ko wax ni ko. Mm-hmm. boo gisatul coon sekk. Mm-hmm. gisatoo jaaga. <laughs> mbaat dina la gis yow. yow daam nga fitu dem fa chaque jour. gisatoo muumi. mais dëj bi dañ ko fa yemale de bul fàtte loolu. yaa ngi dégg Pape. Mm-hmm. gisatoo muumi. yàlla moom mi ngi fi te du fi jug. wallaay du fi jug. oh wax nga lu neex oustaz. yàlla na doon sa wéttal. xaaral ma avance la jox la ci waa maa ko maa ko joxeel waale. yàlla bu loxoom féexee mm, maa ko joxeel waale pour le moment. loolu maa ko joxee la gum waale. jërëjëf. Mhm, macha allah. Serigne Boub ñu ngi koy gërëm. <laughs> ku dugg na de dugg na de. ñu ngi koy gërëm. Pape Samba coupeel émission bi wala ma votel Alpha Thiam. coupeel émission bi wala ma votel Alpha Thiam. Pape Samba Serigne Boub. <laughs> coupeel émission bi wala ma votel Alpha Thiam. Serigne Boub ñu ngi koy gërëm. <laughs> maa la avance ci waale. yaa ngi dégg Pape. waaw macha allah. ma ni ko. boo gisatul ñii ñëpp. Uh-huh. Uh-huh. sunu borom moom du fi jug. wallaahi. beneen bi ci des mooy gis nga Pape. Pape ma ni ko. xamoo Serigne Mboup wax ci moom loolu nga fa barki démb yow lii moo tax ñu lay baar da ngaa wax a wax a wax dugg na nag. ndax man nangu naa ni ku dugg na <laughs> Fallou bi nga xam ne yow la faral nee na ku dugg na fi mu ne diggante bi tey dina mel ni Sénégal Côte d'Ivoire. mais Pape. Hmm? gis nga yàlla. Hmm. moom képp moo mën a orienté nit. Hmm. mu am réussir. wallaahi wallaahi. wallaahi mais Sénégal boo amee problème ne ci xat-xat. au lieu ah, yeneen lañ lay wax. wallaahi. ba pare Pape sénégalais mën a gaafal nit Sénégal moo sénégalais moo mën wax ju bon. baax doy moo mën wax ju ñaaw. yàlla di rey nga ni yàlla reyul ay nit ay rey. waaw loolu pour lan la oustaz lu xew luy problème bi. alaaji Pape sénégalais moo mën a gaafal nit yor ay kàddoom yu ñaaw di ko wax ci deewu jàmbur te li muy wax wóoru ko te bis bu fàttalikoo ni ki dem ba muy wax ci moom dana ko fekki dana njëgënaayoo loxo ndeyjooram. toog di commentaire rek. ci yàlla ñeme yàlla. déegoo xam ni yàllaa ko rey ki fi jëlee Seydina Muhammad. moo ko fi jëlee te moo fiy jëlee ñëpp. ndax kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram te dafa mel ni ñoom dañu dañuy bëri ay xol yuy metti mais Pape Sénégal ngay gis nit ku faatu junni commentaire junni version sa yoon nekku si sa baay deewul sa yaay deewul sa sœur deewul sa yoon ci dee gi lu ne nga wax ko kàddu bu ñaaw bu ne nga jël teg ko ci ñi faatu ay waay bàyyi leen seen làmmiñ yi ngeen boyal ci nit ñi tey wax jàmm mm-hmm. déedéet rendez-vous la ku sa rendez jot nga wuy ji. ku jàpp ni nag fi ngay sax yëgoo lu xew. nañuy rafetal kàddu yi tam maandu te gàttal suñu wax ju bari ji alaaji pap kenn talatu la toppatoo kenn armeel yi boo fi duggee doo xam lu xew. bërki démb bi ñuy denc jaaga alaaji pap mais nit ñi dañuy mel ni ku nekkul ci ay armeel kenn mënatu la jot sa néew normal pour rob ko. te yonent bi waxoon ni nit lu ngeen ànd ànd ànd ànd ànd bis bu ko mbokkam faatoo soril te bàyyi mbokk yi ñu doxal. Mhm. nit su faatoo dañuy tànn ña gën a bokk ak moom. Mhm. ñu téye ci jaag bi ña gën a bokk ak moom ñu jege ko lu dul ni ka bokk ca ñoom moo la woo. Mhm. loolu ci maandu ak gëm yàlla ci gëm yàlla la bokk sax na alaaji pap nettali dëgg guñ la laajul te kenn laaju leen kenn laaju leen ko <laughs> waaye docteur si kay xoolal ma sama malaise bi waaye nit ku faatu ku ne ni yaay joxe information fenkat yi ne Sénégal ak ya nekk bitim réew. live kat yu mën a fen yëpp. kenn laaju taal seeni live départ. léegi am na. koor bi dinañ di joxe ay information wuti leen liggéey te bàyyi ñàkk jom góor du ñàkk jom. jaaxle naa jaaxle naa mais Pape li xew Sénégal lan la. jaaxle naa jaaxle naa. li xew Sénégal lan la lan moo xew Sénégal. te damaa toog rek. damaa toog rek. koor buy wàcc ku ne bëgg a làqatu jël sa téléphone di film. maa njëkk a génnee information bi lii lañuy wax kii waxul lii kii waxul laa lu xew. lu tax ñuy def loolu. mais Pape dalay sax jaaxal. réew mi kenn mënatu fee dund. Mm-hmm. ku dee duñ la noppal nit ñi dañuy wax bay wax ci ki faatu. yàlla. néew bu fi génn àdduna li fekk robaguñ la ci bàmmeel nekkoo ci jàmm. ndax kàdduy sénégalais yi. diw nangam diw nangam te yonent bi bañ ko ba ni uskuru mahasina mawtaakum. répété lool lu mu wunu. Seydina Muhammad nee na nit bu faatoo lu ngeen xam ci lu rafet wax leen ko te noppi ci ay ayibam. moo wax loolu moom yonent bi moom yonent bi uskuru mahasina mawtaakum ñun dafa mel ni xamee ko noonu. ki faatu li mu rafet le dee leen ko tudd. te ngeen maandu ci njabootam. maandu ci ay doomam. maandu ci ay sëtam maandu ci ay gorom famem nga neutre ci tëj ci sa làmmiñ waaye di nga gis pap ku xëy kolu yendu ci dëj bi jëw ak wut lu mu xam moo ko fa indi mais yàlla taxul wut ak wut loo nettali wut ay information ñu dem ba mel ni pap àdduna bi dafa changé kenn xamatul lu xew kenn xàmmeetul nit ñi kàddu bu ñaaw bu ne nit àttan koo yëkkati di ko teg ci moroomu nitam. parce que parce que bu njëkkaan. Mhm. Euh, pour ñun ñu nekk ci profession bi. course à l'information euh, journaliste moo ko daan def. journaliste mooy ki jàngee ci école journalisme waaye léegi sama classe gi dañuy ibbi chaîne YouTube rek. jël jël jël promotion jox ko micro bind ci logo ne ko demal finalement sax dañuy yàq deru journalistes yi parce que c'est pas des journalistes ku ci nekk yaa ngi xëccoo ci sa statut pour njëkk a joxe exclusivité loolu bokkul ci jaamu yàlla et c'est ces mêmes la là ñooy ñëw nii ñii ñu ngi foowee diine te ñoom la ñuy def moo gën a garaaw sax foowee diine bërki démb dama ne bu njëkk seetkat da nga ko daan fay xaalis pour mu seetal la mhm. kenn daawul seet ci gratuit mhm. léegi rek ngay gis ku génn ci internet bi di wax lim gis ci seet gi te kenn weexalu ko lu xew. ma defee ni Macky Sall da leen di woo di leen jox leen dërëm. Ah génn di jox nit ñi ay ay luy xew suba ku la ko laaj. saraxe leen mburu ku xiif. luy luy problème bi. soow lan mooy problème bi. Pape luñ la boolewul yow. Pape Pape luñ la boolewul noppi ci. beneen bi ci des Pape. ma may la nga jël keneen beneen bi ci des. Ah. mooy yàlla. Ah. mais ñoom lu ñu fen yàlla. Mhm. bindul nit ku ay gaaf. Mhm. ba mën a rey moroomu nitam. ah bon pourquoi ñuy gaafal nit loolu amul. Hmm. xoolal diw. mon vieux pape diw. Mhm. famille bi mu bokk. boo ci takkee. da ngeen di ubbeeku. existé wul. diw famille bi mu bokk boo ci duggee sa wërsëg day gën a ubbeeku existé wul. diw fami bi mu bokk bu ngeen ci duggee da ngeen di gën a am existé wul. diw famille bi mu bokk bu ngeen ci takkee jabar da ngeen di gën a dellu gannaaw existé wul diw famille bi mu bokk bu ngeen ci takkee jabar da ngeen di feebar existé wul. kon yii ñuy wax nii yëpp diw famille bi mu bokk ku ca takk jabar da ngay faatu existé wul. yàlla bindul nit koo xam ni da ngay nekk gaaf ci sa moroomu nit nit ñépp yam ca yàlla alxalqu kulluhum iyaalullah. parce que mais ñun ñu bëgg a jël sunu bopp yi bëgg a nekk bëgg cee def ay kopp. Mhm. pap commentaire bu dul bu jinne nga koy dégg ci réew. et dañuy def loo xale yi sax ci génération. bi di ñëw dañuy foog nii euh, yooyu moo normal. déedéet ku dee sa heure de moo jot. ci yàlla. yàlla keroog ba muy bind jaaga. Mhm. dafa date woon ni ci deux mille vingt quatre bii. ci mhm. mois de février bii. Mhm. ci lay faatoo. ñu ngi janvier oustaz. wala ñu ngi janvier. buñ ko wàccee loon junni kaamil day dem. parce que sunu borom waxam du tuxu. nanuy nangu dogal yi gëm yàlla te maandu ci famille jàmbur yi. Mm-hmm. lii mooy wax ji. Mm-hmm. famille boo ca bokkul. Mm-hmm. doo ca doom. doo ca jarbaat. doo ca sët. doo ca goro. kenn dugala lu ca. loo ca wax da ngaa tooñ. nañu gàttal sunu làmmiñ yi tey wax lu rafet. nanu bàyyi nit ñi nga xam ne bu leen yàlla faatoo ku ne di génn naan gisoon noon gisoon naa dee ku gisul sa ku gisul ci sa bopp loo. maanaam ku gisul ci sa bopp say mbiri bopp mën ngaa gis mbiru keneen. macha allah macha allah. pap nanu gëm yàlla. Mhm. nanu amaat tawxiid nanu mhm. amaat imaan. Mhm. nanu xamaat sunu bopp xam ni ñun ay jullit lanu. defaraat sunuy jikko alaaji pap et puis yóbbuwul kenn